asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di bëgg di leen ziar tey nag maa ngi biir Grand Yoff fi ñuy wax Grand Yoff ci quartier bi nga xam ne ni yaakaar na moo moom mooy Fourrière mbër mi fi dëkk tamit tudd Fourrière war a bëri bàyyi bi ñeen siñor may jéglu tamit waa Caaroy parce que ma gisu ngeen ma Caaroy ba dama newoon ci ay affaire moo tax ñëw mu woon mais gis naa open presse bi neex na macha allah lépp a ngi biir Equivox tey ñëw nañ Grand yof di ngeen gis Fourrière bu fecc wax ak adversaire am tontu ko ndax li ma leen waxoon suba ci revue bi rek tontu lay doon parce que li tax mooy am na baay Baye Mandione Junior wax am na lu ko Fourrière ton lu ko lu mu ko a tontu ci kanam lay doon ak Equivox TV ngeen topp ñu pour kañ la le 19 juin arène nationale préparé leen ko ay grand combat kese ngeen di gis bii ci bés boobu da cay duggaale ci besu kan Tyson 2 Franc Mama Lamine Garga 2 alliance biram ki nga xam ne nii moom mooy caatu ngewel ak Vox Arena du mën a ñàkk làmb ja day neex day day jax day yëngu incha allahu rabbi nañ dugg si biir Balde. nekk xale boo xam ne espoir la di yaakaar mu mel léegi Grand Yoff bu ñu xoolee ci làmb ah fi mu nekk nii ni mu daan doxee at si ginnaaw daa me ni léegi affaire yi mu ngi xaw di wàcc parce que diinam yaa ngi dégg tey Fourrière lan moo koy xaar par rapport ak li nga xam ne nii ci la jëm parce que ci defet nga mujj sa digganteeg ki nga xam ne nii moom mooy xale boobu dëkk Soumbédioune bébé Diène bërki dem daan di faal daanu na muy loo xam ne daal Grand Yoff fi mu nekk nii ban taxawaay la war a am dimanche le euh, samedi le 19 incha allahu rabbi waaw dañ ci am dañuy encouragé di naan décourage naan di faal décourage caatu caatu maalaw rek. dinañ encouragé ne leen ñëwaat leen quoi lam mu ngi seen ginnaaw est-ce comprendre mais Grand Yoff bi moom xam nga nit moom bëgg moom yàlla moo koy def si doomu aadama quoi. bëgg yàlla moo koy def si doomu aadama te man waa Grand Yoff dañoo ànd ak man xam nga dama nekk seen doom yu yoroo fi yoroo mooy lu ma lay wax rek. booy bi lu mu koy yóbbante mooy grand laa dëkk man ma ko ñu feeg quoi. ko ñu feeg déedéet. tey boo ñëwee Grand Yoff fekk mbëri mbooloo mi génn yëpp góor jigéen ñëpp toog ànd ak yow di la soutenir lan lay def ci yow. waaw am kontaan bu bëggee rek ñun moom mooy maanaam li dañu li dañu def ñoo yàgg topp depuis ba ñuy mbappat maanaam duñ ci am benn pression te incha allah bu bu jour duñ ci xam dara incha allah. waaw budul dara sax Grand moo soxla. Grand moo soxla budul dara. Grand moo soxla quoi. Uh-huh. xam nga euh, Baye Mandione Senior xam nga ko. waaw xam naa ko xëy na moom moom umpale rek te incha allah bu boobaa dina leer incha allah. ci loo ko xam. waaw ci waxu dof rek laa xam man de waxu dof rek laa xam wax dëgg yàlla. waxu dof rek lay wax. waaw loolu rek. Baye Mandione Senior niroo na na la ak dof. non non déggoo ma de man si danga ma lu ko xam man la si waxu dof laa xam. mais bu jour ba dina xam ne loolu lépp dëgg la. grand moo yónni yàqamti mu quoi. léegi kuy wax waxi dof nga lekk avance am est-ce que wóor na. mooy lu ma la wax rek man ku ñëpp ku fi ñëpp jël laa kii ku fi laa jël man nag bébé jën ku nekk gis na nu mu demee mais làmb la moom waa mais làmb la waaw dañuy ñaan rek jour ji yàlla may ñu ndam quoi. waaw mooy lu ma la wax rek xam nga dama dama génne slogan bu bees mooy ragal du ñu topp bi quoi waaw boobu jeunesse Grand Yoff laay waxal quoi ku ragal rek na nga toog xaar ñun ñu yox la jëli ko te Grand Yoff ragal dëkku fi waaw. mais lan la. waaw <coughs> boo boo boo gisee boo gisee lu ma lu ma def lu ma def si ay njuk xam nga ne liggéey nañ ko bu baax a mais bu bu jour jëlee ba incha allah dina leer quoi. waaw mais dañoo gis ëpp lool dala la ëpp lool lool lool lool est-ce que loolu du am lu muy def ci yow. waaw mooy lu mooy lu ma la wax rek man moom 200 kilos sax mun naa bëreeg moom quoi waaw ba 300 kilos sax mun naa bëreeg moom waaw. Mhm. ne tey la tey seeti naa ko mais nee na làmb ja bésub làmb ja lépp lu fa am loo xamante ne moo fay am rek moom moo koy def mooy xeex mooy bëre. mooy lu mu laa rek mobile moo ko gën a diis fuuf te damay contact ak moom Zarko moo ko gën a diis Zarko moo ko gën a diis fuuf te damay contact ak moom. mooy lu ma laa rek gannaaw dafa ma yónni yàqam ma taxawaalu waruma ko waaw. mais est-ce que li leen mobile di may ci contact xam nga mobile da ngeen di contact yéen a bokk écrit kee moom du la may lool ndax xam naa day xeex ak yow day bëreeg yow te itam poam comme ni la Ousin mi wax ah. est-ce que du dis ci par rapport ak euh, ni nga toll ni mooy mooy mooy lu ma la rek man ñaanu ma ko dara te lu ma may ma jël incha allah bu jour jour moom na wax lu mu wax na ko dëggal rek incha allah. parce que man ay waxam dégg naa ci mu ne duma la boo bëree dalay daan ngeen xeex dalay duma. xam nga loolu ah, wax adversaire la rek ndax ndax kii. ba nag làmbam day tàng de. loolu moom signature bu nekk signature bu nekk. déglu ma rek ñun signature bu nekk dégg nañ ko quoi ay maxaasa ay signature yu jooy yëpp dégg nañ ko waaw ñun ragaluñu loolu waaw te ñun duñu ngaaxa waaw man gannaaw laa dëkk lu yoonu maxaasa ci biir komba lu yoonu maxaasa ci biir komba waaw waxin la rek maanaam dama lay wan ne signature bu nekk dégg nañ ko ñun loolu yóbbuñu fenn waaw nee na euh, bi ñaari combat mu am diggante euh, Thiaroye ak Grand Yoff day ñëw daan la kii di Baye Mandione ñoo daan Zarko. waaw loolu man loolu dawul sama yaram ñun dañuy dóor dóoraat barke Serigne Bamba. Garaaf moo décidé te bu suusa dina comprendre waaw jarul wax ji di bari dama leen di yóbbante benn message la yéen presse bi quoi xam nga seen làmb la dama leen naan yow bu yow Boubacar yow Lamine yow Bour Guéweul neewal ma booy bi Garaaf laa dëkk dëkkuma ko ñu fekk te man ragal du ma toog te Garaaf ra Garaaf ragal dëkku fi waaw il faut ñu xam loolu. mais nag ay waxkat lañ mhm. ah, ko tuddee ah, mooy moy lu ma la rek man man man damaa teggi ne quoi man amateur yi kii animateur yi laay wax du ma wax ay ay waxkat quoi est-ce que comprendre nga. waaw di wax jour ja bu na neex di yëngoo rek incha allah yéen ñëpp ok grand moom moom yónni yàqamti ma waaw. Mhm. looy que dañ koy faral di gis euh, lu ma la rek ñun moom kenn xamee wu ñu xeex quoi. Grand Yoff bi yëpp kenn xamee ñu xeex ñu ñu ñëw fii ay noble ñoo fi dëkk gars yi ñëw du ñu mbuboo rek mais yàlla xam na ne fii ay garmee fi dëkk te dañoo kiliñ barke Serigne Bamba waaw euh, bés boobu seen ay mag dañ ciy bëree bokk na ci Maama Lamine bu Lamsaar ak ki nga xam ne nii moom mooy Garga 2 euh, bokk na ci Franc ak Tyson 2 yéen en tant ay xale ci côté mobilisation est-ce que côté bés boobu xalaat ngeen ñooñu ëpp la leen mbooloo ci bés boobu yow ak Baye Mandione surtout yow a ah, yow ñëw nga gis nga gis nga signature bi gis nga signature bi nu mu demee waaw mooy man man liyantiwu ma ay ay yeneen yeneen camp yeneen yeneen adversaire sax man sama adversaire moomu ñor et puis c'est tout mm. waaw mm-hmm. waaw fi nekk nii ah, ci ci ci ci côté doole boo ko xoolee xool sa bopp kan moo war a doole. bàyyi ma bàyyi ma di moo ay waxu doole bis bu ñu jàppante ñëpp dinañ xam ne dëgg lépp dëgg la waaw. bis bu ñu jaabantee ñëpp nañ xam ne lépp dëgg la. de su ko mën a bañ a laaj. waaw doole ji waaw doole ji faaw ñu laaj ko ndax ñëpp dañ ne moo la ëpp doole. doole. doole du doole du dijji de dijji dëgër moo gën. waaw doole du dijji. man man sama combat bi paas ñu ma xam ñu ma xam ñu ma xam ñëpp ci poids lañ ma xamee. waaw kon tey su ma ñëwee nii da nga war a taaj lan la yow da nga war a toog nga naa. Ah, de loolu kay laaj nañ la ko maanaam bi ngay bëree bébé jéen poids bi dafa bëri woon mais tey dañoo gis poids boo xam ne gisuñu poids mooy lu ma la rek ñun amul luñ ciy tontu dañuy bàyyi ba jour ji rek ñaan yàlla may ñu ndam. xanaa da nga da nga bëgg a bëree bëree ci ruux carax jaar ci wet yi fàmb yi fu la neex jaar. Babacar waaw Baye Mandione nee na. jeexam bii daa feebar. waaw loolu la loolu loolu la loolu la yaakaar rek mais yàlla baax na loolu la yaakaar rek mais yàlla baax na. yow dara dalul la. waaw feebar nga ne la. barke Serigne Touba nga ne la. waaw léegi wooteel. waa di woo waa Grand Yoff yëpp di woo waa Grand Yoff yëpp di leen ne. di leen ne man maay dip Grand Yoff laa dëkk man maay dip Grand Yoff laa dëkk dëkkuma ko ñu féeg. dip ak ngaakare daawul neex. waxal ma booy bi mu ngi tàngal sama yaram waay eh, maay fin boloor du ma fëlee fu ñu foogee moo waral gars yi waaru waay waaw. am na. dellul ci li nga waxoon léegi nga ne. du ma fëlee fu Grand Yoff laa dëkk dëkkuma ko ñu féeg man maay fin boloor duñ ma fël du ma fëlee fu moo tax gars yi waay. dof nday ne waxal ma booy mi ngi tàngal sama yaram waaye. Fourrière Fourrière daa mel ni yow mën ngaa rab de. waaw garaaf garaaf dañoo carré. fii bu ne mu ngi fi. barke Serigne Bamba ñu lépp lépp mu ngi fi. barke Serigne Bamba. waa Sikar dégg naa mën ngaa Sikar nag dégg naa ko mën na. waaw ñun lamb séeréer mooy ñuy suñu ginnaaw ñun manqué wuñ dara. lépp mu ngi fi artiste barke sëñ Bamba te bu bu incha bu bu jour waa di nga ne lépp lu kon Fourrière ba la 19. waaw incha allah waaw bëgg ci yow